dal leen ak jàmm ci xibaar yu gën a fës ci bis bi dañ koy doori ret ak jee ji am foofee ca village bu Kabadiak nekk ca commune bu Ndiéyène rax nga xamante ne nag ñaari jakartaman ñoo doon xuloo ba xuloo boobu nag daal di jur xeex ba jamante paaka am ci kenn nag daal di ñàkk bakkanam muy euh, ki turu Mara Ñing moom nag moom moo daal di génn àdduna Mara moomu nag sax bu ñu ñëwaatee ci mbir mi daal li mu demee moom moo di waxtaan bu ñàkk fayda daal moom moo tax ba xaritam boobu boobee daal di koy jam paaka mu daal di génn àdduna mbir mi nag sax ab hémorragie yi la ko daal di dikkee daal mu jaare fa ñàkk bakkanam waaye nag bi mu ameen sax ci la ñu woo ñi nga xamante ni ñoom ñoo di waa gendarmerie daal di ñëw constaté mbir mi waaye itam moom waa ji néewam ñu daal di ko yóbbu ca poste bu nekk ca ca gox boobee ne waa ji nga xamante ni nag moom moo def loolu daal di daw waaye itam sax ñu ko daal di tegee loxo foofe ci diwaan Touba ñu ngi ñuy xamal ni que sax laataa ñu ko teg loxo moom ñaari waajuram lañu jàpp lañu lañ daal di jàpp placé leen en garde à waaye nag moom bi ko tegee loxo daal daal nañuy libéré ñaari woy waajuram yooyee ne dañuy wax itam ba tey rek ci beneen mbir bu nga xamante ni am na euh, foofee ca poste police bu Guy Mbind muy diggante waa ji nga xamante ni daal moom moo di Dee Diop ak benn soxna ma buy wokki turu na Guèye soxna si nag daanaka sax moom dafa def ab erreur bu nga xamante ni daal mujj na ko coûté cher ndax dafa daal di filmer woon ay awraam daal di koy def ci téléphone am sax moom war a itam waa jooju daal di sàkk téléphone am ba gis ay li nga xamante ni moom moo di vidéo am ci vidéo yooyu nag la waa gi daal di ko nag doon ko menacé ngir tëdd ak moom waral nag moom